bokki taalibe bokki dëkkandoo yi noo ngi leen di nuyu di jottali ay kàddu ci tuuru sëriñ xamsatu miy jëwriñ ji liggéey bi xam naa li ma bëggoon mooy kàddu gépp doon genn ndegam ki fi nekkal Serigne Touba ndawam a ngi fi tamat ko sëkk di Serigne Bassirou jox kàddoom Serigne Ahmadou Rafaayou moo taxoon ma fab sama kàddu ak kàddu kër Serigne bu te sama kàddu bu ma ko waxee mooy kàddu Serigne Hamsatou bëggoon mu yóbbaale ko muy benn ndax wone aw yoon ñu xam ne lépp lenn la te bu waxee waxaaleel ñëpp waaye ba tey lu rafet rek la ndax Serigne Hamsatou dafa wax ne. dafa am lu mu bëggoon jotal ko diggam ak sëriñ Muntaxa te jotu ci war a wax ak sëñ Rafa yu kon dafa mel ne waxuma damay mottali waxi sëñ Rafa wala damay saraa waxi sëñ Rafa waaye nag ku mat a jafel ñaan laa ndax nag sëñ Rafa wax ba noppi nga bëgg ci àtteeg dara moom lu jafe la kon xawma fu may tàmbalee ak fu may yem waaye nag li ci ëpp solo mooy sëriñ Hamsatu dafa wax ne cantuk sëriñ mun Muntaxa cantuk bokk yépp dugg na ci biir cantuk taalibe yépp dugg na ci biir bu ko santee rek taalibe bu ne mën nga cee gis sa bopp mbokk mu ne man nga cee gis sa bopp waaye mi ngi seereel bokk yépp di seereel taalibe yépp di ko seereel it ki nga xam ne mooy buntam ci sëriñ sëriñ Tuubaa muy sëriñ Seex te moo dox diggam ak sëriñ tubaa ndax mooy sëñ soxna bu ci moom nag ni si biig mi ngi fi xam ngeen ne Abo bokk na ci ñi jiitu liggéey bi ñi jiite liggéey bi te yabalaat na fi ay délégation ñu teewal ko fi njabootam gépp te noonu la ko Serigne Abdou defee noonu la ko sëñ lu defee neen la ko rakkam yëpp defee ak njabooti kër sëñ Touba gépp loolu nag cant yooyu yëpp la boole fas ko yéenee delloo ci sëñ mun Muntaxa mu yaatal ko ci bokk yëpp ndax bu santee sëñ Muntaxa sant na ñëpp. kon nag moom mënta fay sëriñ Muntaxa ndax da ko yombalal ab liggéeyam da ko fekk ci waar wi gën koo fonk waar wi dax koo liggéey gën koo bëgg liggéey bi yéene ko liggéey bi te jàppale ko ci liggéey bi loolu mooy waxtu wu ne bu masaa jot day ñëwal boppam fii toog ci jataay bii fekk lépp lu mu yàgg-yàgg da koy muñ ba mu jeex bu noppee mu jël kàddoom gu tedd ga tontul boppam dàggi murid yi yeesalaat leen ñaanal leen àgg na ci at moo xam ne dama ko ne ren sax day yërëm nañ la lool ci ñëw gi waaye dañoo xam ne liggéeyal sëñ Tuuba la mu ne ma bu ma àggoon ci ñu di ma teg ci puus puus di ma di ma indi it danaa ko def waaye nag nun noo dem ba xam ne ñemeetuñoo yëkkati sëñ tubaa danoo war a bokki ci ñi koy sakkanal te dañoo war a wone yoon woow yi ne bañee lunu ko te nangul nanu ko waaye nag dañoo bëgg ñëpp jàng ci nun ñu xam ne lu gën a rëy bi su xasida amut ndegam teggil nañ ko ko ku ne war ngaa jànge ci loolu war koo teggil yu bari te war koo sakkanal loolu rek lañ ci jublu waaye bu nu neexoon mu ñëw buñ ko bàyyi woon ak sagoom it dana ko jiim lu metti metti dana jiim a ñëw waaye nag ndokk bi mu na ko nangulee ndokk bi mu boolee koo xam ne mooy jëmma muy sëriñ Basiru mii sëriñ am satu nga teraanga juune jóge na sëñ Muntaxa ñëw ci moom lu bët di mën a gis rek ca la bokk ci ay yére ay laj yu seer yoo xam ne kenn xamul lu muy jar ay dàll ay piis yére yu ñaw ba noppi ay gaali xasida lu xelam dem rek dafa mel ne ko daanu lu ne defal na ko te moom sëñ am sëtu dafa jàpp ne loolu moom la war ci moom kon li mu jógee ci moom ñëw ci moom barkeelu képp la ko jàppe weesu wut mu gisee ko ne seex ya daa liggéeyal sëriñ tubaa mu daa leen téye njaareem buñ demee bay dem mbàjj yam leen di jox ak jëllee bi yam leen di jox ne leen yóbbu leen ko barkeeloo ko noonu la koy jàppe waaye butu noonu looloo du ko ñemee téye waaye nag na ngeen xam ne yéen ahlu xasida yi mu àndal liggéey bi li leen li ko sëriñ Muntaxa jox na kenn ku ne jàpp ne ci sa loxo la ko teg lu mu cay am ciw yiw moog yéen a koy bokk kon nag sëriñ bi nee na sant mënta ñàkk mënta wees sant mu ngi koy seereel bokk yëpp ngërëmam akuk cantam akuk yeesloom ci fas yéene yeesalaat ab liggéeyam takkaan liggéey ndiggam ànd ko ñi mu bëgg àndal ci liggéey bi ci waa alul xasida ak taalibe yi bopp yëpp yëpp yëpp topp ci gannaaw sëñ taxa liggéeyal ko ci liggéeyam bii nga xam ne moo ko ñor ak liggéeyam yii war a ñëw yi ci des yëpp te buñ ñëwee bii ko ñor dëgg dëgg na nga xam ne jenn itali ci moom mooy wutal sëñ Tuubaa jàngukaay boo xam ne kenn du jëggaane waat xam-xam fenn fii la ñëpp di yem muy muy daara jii kon nag mi ngi mi ni ko Aliou Diop waxee léegi rek ni mu ko santaanee woon daaw mi ngi koy soññee ren fas yéene balaa poroxaan mu jébbale ko te kenn ku ne loo defoon na nga ko yokk te xam ne defaloo ko kenn sa bopp nga koy defal sant nañ ci ndaw lim nu yabalal ndax daf noo yabalal suñu bopp muy sëñ Basiiru lim doon ci kër gi xam nañ ko jàpp naa ne bu dutoon lim doon ci nun kilifa ak sofeel geeg jàpp gi mu jàpp suñu am sax ak ni njaboot gi jaxasoo sax waaye basiiru mi képp rek doy na ci misaal ne ci seen biir ànd ci liggéey bi waxtu wu ne kon bu yebalee sëñ basiiru ci suñ bopp loolu yebala la mu war a jàngat bu baax nag diggante ndaw lii ak ki mu yónni ak seen ñaari waajur ya yoon yi war na cee jànge lu bari fonkante gañ fonkante woon sëriñ basiiru sëriñ fabilu bi sëriñ Abo mi ñëwee mu am yéene tudde sëriñ Basiiru te jigéen ñëw yéene ji rëy ba amut xamut fu lu muy def te xam nga ne moom lu mu ñaan yàlla def ko sëñ son bi sax daf daa wax ne wàllu yi dañuy ñaan yàlla di def sëñ Fallu nag day wax mu am day wax rek yàlla def waaye te loolu lépp ndegam ci moom la aju dafa bàyyee yàlla yàlla ak boppam bàyyi gi mu bàyyee yàlla boppam sëñ ca def ci boppam dara moo tax ne bu doon kenee na da ko naan demal léegi doom ñëw te gu góor lay doon waaye moom dafa bàyyi yàlla boppam ak sëriñ bi di nege rek ku ñëw di jigéen te yéene ji rëy monsieur taalibe bu buñ ko buñ ko joxoon bu mu fonk dikk jox ko sëñ Basiiru ne ko na toog fii nekk Basiiru ba mu ñëw bu ñëwee ma door a jëlaat sama taalibe na fi wuutu Basiiru mi ma yéene ci tudde la ko ba Basiiru ñëw keroog ba sëñ Basiiru ñëwee di góor rek bañ ko laataa tudd la ñëw na naa jël si waat sama taalibe Basiiru ñëw na kon nag bëggante googu ak cofeel googu la yoonu murid wépp war a jàng ci diggante bu ne sëñ Falilu ñëw na tiit fii sëñ Muntaxa nekk tey fekk ko mu tëju di ja di deeyaaleeg boromam ne bëkk néeg bi damaa jàpp damay deeyaaleeg sama borom bu ma yëgal kenn bu ma bu ma fëgg bu ma yëglu damaa jàpp sëñ Basiru sëñ lu egsi ne ko sëñ sëñ baa ngi fee dama ko doon siyaari bañ koo teggi rek mu ne ko waaw moom day ma àgg fa yëgal kooku ndax dafa mel dafa jàppoon kursam waaye mën na maa àgg yëgal kooku mu ne ko déedéet doomu Sëñ Tuubaa jote ji kenn du ko fëgg kenn du ko fëgg déedéet ne ko rek fali lu jaaroon na fi daal dem naka mu génn yem ci loolu sëñ Basiiru bëkk néeg wax ko ko mu ne ko yow matoo bëkk néeg yeewu naa la tey ndax doomi Sëñ Tuubaa kenn du ko tëju waaw kon kon kon kon ñoom doxin woowu la ñëpp a war a roy ci ñoom ku ci ne boo xoolee sa morom Sëñ nga ciy gis waaw loolu waxoon ne sëriñ bi bay fàggu suñu diggante dafa dàq seytaane ba mu dem mu door koo fàggu moo tax seytaane amut ci nun aw yoon dal ne booy xoolub seetu koy gis kooka ne ko sa bopp mu ne ko kuy xool moroomam ci nun sa bopp rek ngay gis kon nag sëriñ bi noo ngi sant bu baax ci ndaw li ndaw lu mat sëkk lu nu neex lu nuy safoo muy sëriñ Basiiru ak sa bokk yi nga àndal yépp ñu ngi leen tatagal ci seen kër di leen jaajëfal bu baax a baax kon nag cant gi rek laa doon wax sëñu maa wax ci kanam sëñ bi waruma waaraate ci kanam sëñ bi warumaa digle ci kanam sëñ bi xanaa ñëw ci sëriñ bi tuuti ak ci yoonam wi ak ci xasidaam bi te jéggulu sëriñ bi sëriñ bi de moom dafa am lu mu waxoon lu gàtt loo xam ne da koo seere bu yàgg te seere sa mat sëkk seere ndax kam ko seere loo mooy seere si gën a mat mooy alxuraan kon na ñëpp maase yeesalaat seen pas-pas ci sëriñ bi ak seen yaakaar xam ne wàcc na wàccoon ak taalibe yi lu leen jaaxal lu mu rëy lu ngeen gis lu ko ëpp doole amoon na fi te ay taalibe yu gëm sëñ Tuubaa ngi fi woon te seere nañ ko ba loola jàll te dara yàqu kon nag da ngeen dolli seen jom ak seen pas-pas te bàyyi xel lii ma leen di bëgg a wax ku ko dégg ku ne na koy déggee ak na koy jàngate nag dana ko jàngal lu bari sëñ Maxtaar Bintaloo sëriñ bi daf ko yónni woon ci ab dëkk mu dox la muy dox ba noppi jaar ci ay bokk di nuyoo ñoom am ca bokk ya ñoo xam ne bokkuñ ci tarixa bi ay bokk lañ waaye jotu ñoo xam ne sëñ Maxtaar jébbalu na defe nañ ne rek ñoo bokk tarixa wala mi ci beneen tarixa ñu toog seen jataay bu yaatu di jëw sëriñ bi ak yoon wi moom bu ñu jëwoon sax jëw jullit ak morom ma ñu xam waaye dañoo dëkkale sax war a dëkkale nu ci ay yéefar ne ay yéefar lañ daal ne ñoom ne seen xéewal yu bari ak seen war wërsëgu bari yi jël leen a ñee ndax wërsëg woo xam ne fii la yem bu ëllëgee da ngay dem sawara jërte ñee kenn daal indi aaya bi nga xam ne ci ay yéefar la wàccoon wa yawma yu'radu allazina kafaru ala an-naari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna azab al-huni bima kuntum tastakbiruna fi al-ardi bi ghayri al-haqq wa bima kuntum tafsiqun loolu nga xam ne yéefar yaa taxoon suñ borom di ko wax ne bàyyi leen rek ñuy noos si àddina si ba ëllëg jot suñ borom dana leneen la ngeen waroon a am lépp am ngeen ko ci àddina noose ngeen ko àddina tey moom mbëgg la fi sës aaye boobu la fab nag jox ko murid yi waaye sëñ maxtaar mi ngi koy waxal di ko sëñ bi defar yëngu wut rëfut waxut dana dégg ba ni demee xamuñu ne ab murid la ñuy waxal bi mu egsee ci sëriñ bi ba toog wax sëñ bi lam ko yónni woon ba mu àggal sëriñ bi ne ko ndax gisoo fi kenn mu fàtte ko mu toogaat tuuti mu ne ko ma ne ndax gisoo fi kenn xelam demagu ci ba ci yoonu ñetteel wi sëñ Matar door a xalaat li ko waa ji wax ne ko ah am na menn mbokk mu ma gis kay mbàkke am na lu ma doon wax sax sëñ bi ne ko waxal ma dégg mu daal di tari aaya bi ak li wax lépp ba noppi bim mu noppee sëriñ bi ne ko lool loolu la nu àttee moom mu ne ko mu ne ko may ma ma laaj alxuraan moom lu muy àttee maag sama waa kër daldi ko ne maxtaar demal ca téere yële seetal téere bu la ca soob nga génne ko boo ubbee aaye boo jëkk a jot mooy sama àtte maag sama waa kër sëñ maxtaar dem di wër ba ci am ci benn téere di koy génne ci biir téere yi ne ngay yi téere bi yem ci yaa ibaadi laa xawfun aleykum alyawma wala antum taxsanuun allazina amanu bi ayatina wa kaanu muslimin udxulu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun loolu la alxuraan seereel sëriñ bi ak waa këram kon nag soo seere si alxuraan seere sëriñ bi doy na sëñ bi seere wali sëñ bi di wut seneen seere sulul alxuraan alxuraan dëkkuwaayam mooy wétalam mooy léppam anta sabili wal anis li xutta faiqa al maqis bi xidmatil maaxi rais mukayisi bil mulimi kon nag na xel yi dal tañ dollee yaakaar te xam ne ku ñu am kenn amu ko bi mu nekkee gànnaar gàdd gi mu ne woon dafa am geneen gàddug naar gum dendal goo xam ne ay sërif lañ taalibe yi dafa faral di dem am bi suñu dem yem ci sërif bi di bégal waa këram rey giléem gu rëy rëy ne ku soxla rek na ñëw lekk waaye bu bu lakk jotee day fab yàpp wi teg ko ci loxoom lakkee ko ci taal bi ba mu ñor te du lakk daal leen tegal ci ndab li ne leen lekk leen taalibe yi ñëw nag loolu di ñooru ñooru seen xol mënuñu ko muñ ñu dikk ne cell sëñ bi ne lu mu doonoon sëñ bi nag boo ko xamee dëgg dëgg dëgg bu ne lu mu doonoon nag xamal ne am na lu mu la bëgg a laaj moo ko ñaar yoon ñu ne ko mbàkkee dañoo gis sërif di def lu yéeme ñoom de seen taalibe yañ am dañ leen di lakkal yàpp ci seen loxo te seen loxo du lakk mu ne wal leen ma gàdd ga ma ñëw ñu jiitu sëñ bi topp ci ba egsi aqalima gi daan nañ ma jëndalib gàtt ñu andib gàtt sëñ bi ne andi ko ba fii mu andi sëñ bi téye buumu gàtt bi buum gi rek la téye daane bismillah rendi leen ko te lakk ko ñu lakk lakk na nga wut lakk doon làpp yàpp xonq cur lànk sëñ bi ne laal gi ma laal buum gi moo tax sawara wi mënta lakk man lu ma laal du lakk kon nag loolu doy naa dalale xel doy naa dolle yaakaar dolli ko ci ñu xam ne kii nu am kenn amu ko sunu sansa waaye amunu njëgam yéen bokki jànkati xasida yi nag tey moom maa ngi jéggalu sëriñ Basiiru kenn sañ ca joxe fii ndigal laa biire rek la fi am murit sañ a def moroomum taalibeem ndegam jamono ji dafa xat yàq gi bari ñiy lore bari ma bëgg tënk yenn ti xasida yoo xam ne ñooña danañ ko mën a jariñoo ci mbir moomu loola mooy lan waxtu wu ngay dégg dëkk bii ay njeexum di fi am ñuy reye di sàcc di dóore di daane te mel ne nam war a amee siiwi ba ca war bañ jàpp leen wala la ca war duñ ko def jiiñu ñu ko kenn nag waaye amut amut amut benn buñ topp ba am ca lañ bëgg te moo ne day dongab daara bu génnoon sa kër sëñ daara yorub jéng képp balaa mat juróom-ñaari jéego ñu jàpp la jàpp sëñ daara ba tëj kon jàppub sañ daara da leen a gënal jàpp sàcc bu tontu ba waaye nag Serigne Touba amoon na solution ci loolu kon nag ñi nekk seen biir kër commerçant yi borom place yi maa ngi leen di baaxe xaside yii ngeen fonk ko bu ko defee ñiy loree du ñëweti ci yéen ndax Serigne Touba fàggul na leen lépp genn gi moo di asmaa u ahli badrin waxuma leen nag ngeen di ko jàng li li li li tukkal àddina bomb bi nuñ koy tuddeeti atomi bombe atomique bombe atomique nit da koy am réew da koy am teg fa ñu ragale ko ko waaye du lu ñuy taal asmaa lu badrin dañ koy teg ci bagage muy wattu kër ga waaye du lu ñuy jàng waxuma kenn jàng ko waaye ku am sa place teg ko fa kuy lore du fa dem ku am sa kër def ko fa ab sàcc du fa dem am na xasida it gu sëñ bi tënke laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina xasida googi képp kuy ubbi sa sa place jàng laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juróom-ñaari yoon boo ko mënee nga def ko juróom-ñaar fukki yoon tëjee ko xasida gi kenn kuy lor du la mën a jege bu di dikkoon ba jegee la dañ koy dë dañ koy dëw mu dem du egsi kon nag sëñ bi bàyyiwu dara fàggul na leen lépp ba ca topp nag mooy gim aari dëkk muy bul Fawzayni dee leen ko jàng suba ngoon bu ko defee duñ soxlaal kenn dara lépp dana ñëw warisqa hajhal atyabal xalaali fi l usri wal yusri ala tawali kon nag bëgguma jataay bi yàgg laa bii rek laa doon def sama bokki taalibe yi mënuñoo wax ci xasida yi mënuñoo wax ci waa alul xasida te tuddoo xasida yi dara xam naa waa jaalibatul maraaxib moom bu ma leen tudd ñu wax dara waa mafatihul bisri noonu waaye ñu leb ko ba beneene di ko fa di ko tëjee nag cant goo xam ne taalibe yi dañoo daje woon di ko sant sëñ Tuubaa seex yi nga xam ne sëñ bi da leen a boole defal lii ñuy tudde ak ceex ceex gi neex ci ñoom ba mu ñu tiit defe ne fii la yem ñu di ko daje di sëñ sant sëñ bi ne ko mbàkke cant gi day doomi seex yëpp ànd di sant si ngir xéewal ji ngi leen defal sëñ bi ne leen moo ne lii ngeen xool ba defe ne ak cant la day ci àdduna ji rek la yem te àdduna du këru fay këru liggéey la te fayooguma ba di leen fay xam nga ana lu moo